بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ak yéen ci waxtaan wiñ leen tàmm di defal mooy baaqa min rawdil mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi sunu xadisu tey comme ni ngeen ko xamee abu hurayra radiallahu anhu moom moo ñu ko wittalati yal nañu ko yàlla fayal moom abu hurayra radiallahu anhu wa ardahu tey ñu ngi bëgg ànd ak yéen ci jafe ji nga xam jafe-jafe yi nga xam ne daanaka réew yi wala réew mi moom la ñuy dund bokk na tey ci problème yi gën a rëy ci àddina bi yi sénégalais sénégalais yeeg seeni mbokk moroom tey di jànkonte mooy liggéey ba weer dee ñu bañ laa fay te xam ngeen ne sunu diina ji muy lislaam diina ju santaane liggéey la borom bi tabaraka wa taala wax na ci qur'an ci ay aaya yu bare bari wa qul i'malu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu kooku ci liggéey lay soññaati nahnu qasamna baynahum maishatahum fi lhayati dunya wa rafaana baaduhum fawqa baad darajat li yattaxisa baaduhum baadan suxriya aay yi ñu wax yépp aay la yoo xam ne day soññ jullit ci mu war a tuur ñaqam mu war a yulli dooleem liggéey fàggu ci luy mën a tax mu am nu mu dundee ci kaw suuf moo tax ñu bëgg ànd ak yéen ñu sàkku ci yéen ngeen ñëw gunge ñu ci tool bi nga xam ne ci dër bii muy dëru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci tool bi nga xam ne mooy toolu soppe bi muy alxabib Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ñu bëgg ñu ñëw doxantu tey ci biir tool bi ndax ñu mën a xam sunu diina ji muy lislaam sunu yonent bi muy Muhammad lan lañu bàyyee ci wàllu liggéey lan la bàyyee borom entreprise yi lan la bàyyee kilifa yi lan la bàyyee sang yi nga xam ne dañoo am njaboot di leen liggéeyloo ana lan leen yonent yàlla muhammad dénk ñu war ko taxawee jëme ko ci seeni liggéeykat abu hurayra ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne aatul ajira ajrahu qabla an yajiffa araqahu yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na ngallawaayi jox leen liggéeykat bi fayam balaa ñaqam fendi allahu akbar mbokk yi hadis bi dong doon nañ ñu doy ñu xam ne lislaam dong mooy diine ji nga xam ne ci kaw suuf ci keppaaru asamaan gi ci suuf sii ñuy dox moom dong mooy diine mooy dundin wi jox doomu aadama gëddam amul leneen leneen loo jël rek am na lu mu xàppati ci dund doomu aadama ci ay ak xam yiñ ko war a jox lislaam dong mooy diine ji nga xam ne moo jox nit gëddaam xoolal sang bi Mustapha lu mu wax ngallawaay la wax ngallawaay aatu al ajira ajrahu ngalawaay jox leen liggéeykat bi fayam jox leen liggéeykat bi fayam kañ kañ lañ ko koy jox mu ne qabla an yajiffa araquhu balaa ñaqam di fendi allahu akbar nga gis tey grève de la faim yi ci biir dëkk bi société boo dem ci biir Sénégal tey société boo dugg tey ci biir àddina bi am na fa ñuy ñaxtu lan la ñuy ñaxtu àq yu ñu leen yoral te joxuñu leen ko ay salaire allahu akbar léeg-léeg ma tiit delloo yàlla cant su ma déggee nit ku ne toog naa dix mois kenn fayu ma sama salaire toog naa neuf mois toog naa huit mois la hawla wala quwata illa billah mbokk yi naka la ab jullit di liggéeyloo moromu jullitam naka la mbokk di liggéeyloo mbokkam naka la nit di xëyloo nit waxuma la weer de nga bañ ko fay waaye ay weer nga koy dawloo ana ana yàlla ana yàlla xanaa ñii dañoo yaakaar ne xanaa fàttalikuñu bis bi yàlla di wax ne yawma yaqumu nnaas li rabbil alamin bis bi nga xam ne di nga taxaw ci kanamu borom yow mii liggéeylu ak ki nga doon liggéeyal di ngeen taxaw ci kanamu boor bi tabaraka wa taala yàlla ne la lu taxawoon kii ak yi nga ko yorol joxoo ko ko di dawloo nit liggéey la ko ba weer de lekk dooleem tuur ñaqam ba pare di ko dawloo ay weeri weer mu yor njaboot yor kër war leen a dundal nga koy dawloo te li gën a yéeme li gën a ruslu mooy li nga ko war a fay wala li nga leen war a fay yenn saa yi nga dajale ko di ko jëlee ay avocat di ko jëlee di ko fayee di ko neexalee ay nit ñu nga xam ne mën nañ laa jàppale ba nga fell ci àq liggéeykat yi dara waaye maa ngi leen di yëgal ne yéen ñooñu di def loolu ak yow moomu di def loolu ëllëg wallahi amul avocat bu ñemee taxaw ci kanamu yàlla ëllëg avocat du am yow yaa ngi moom yépp di ngeen taxaw ci kanamu yàlla nga yëg ne buur bi mooy alaysa allahu bi ahkamil hakimin atte bi nga defoon yow mi atte woon atte bi di nga xam ne mënoo woon atte da nga doon tappale rek ak di lambatu yàlla tabaraka wa taala moo mën a atte te dina la atte ci kanamu jaam ñi mbokk yi yonte yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam moo ñuy jàngal balaa ñuy dem alaxira di texee di di toskare di alku te dara taxul ludul suñuy àqi moroom suñuy àqi mbokk suñuy àqi dëkkaale suñuy àqi liggéeykat lañu dajale di ko lekk dafa ne am nañ fekk amuñu am na ci doomu aadama yi ñoo xam ne dara taxul ñu am alal tey rek lu dul àqu nit ñi jël bukki suule bukki àqu nit ñi kese lañu am moo tax nga yaakaar ne am nañ fekk amuñu waaw jël sàngam liggéeyloo sàngam jël sareeram fay ko sàngam liggéeyee nangam def nangam lool rek di dawloo ay liggéeykat salaire fukki at salaire u ñaar fukki at salaire u fanweeri at doomu aadama xëy di liggéey suba ba ngoon di daan dooleem di tuur ñaqam léeg-léeg sax mu tuur ñaqam ba tuur rongoñam weer dee nga ni ko yoraluma aw ma lu amaluma lu ma la fay nga defa ne yaa ngi ci sa óolalaa nga defa ne yaa ngi ci lu la neex nga defa ne yow yaa leen ëpp doole wallahi borom bee la ëpp doole bisa ngi ñëw di nga xam ne amoo doole yaa ngi nga àndal ñu nekk ay yambar ay xusma njàpp yoo xam ne nekk wuñ fi lu dul ñu leen di neexal ñuy lekk liggéeykatu ak ñuy lekk aqu liggéeykat yi yaa ngi ñoom yépp ëllëg di ngeen taxaw ci kanam bor bi tabaraka wa taala di ngeen xam ne amu leen woon doole da ngeen doon nappaate mbokk yi hadis bii yonent bi jàngal ñu nee ñu nañu jox liggéeykat bi àqam balaa ñaqam fen bi dinañ ci jëlee ay njàngalin yu bare bare bari bokk na ci mooy al ajuru liman amala liman amila fay saa yoo déggee ñu koy wax mooy ku liggéey a tax saa yoo déggee rek ñu ne fay sa xel du dem ci leen dul waa ji dafa liggéey moo tax ñu naan fay kon ku liggéey ku ne rek tubaab yi ñoo ko wax toute peine mérite salaire bépp liggéey bu def rek ah laaj na fay kon nag képp ku liggéey nañ la fay wala xuquuq duna waajibaat soo déggee nit di laaj ay droit am dafa fekk mu def devoir am naka la nit di defee devoir am ba pare ñu bañ ko fay addu ay droit am naka la nit di liggéeyee ba pare ñu bañ ko fay àqam wallahi lii lu doy waar la lii lu rusul la tey ci monde bi ñuy woote naan ñu ngi vingt et unième siècle nangam ak nangam droit de l'homme pititi patata dugg fi génn fi fekk ay fen kese la ay tappalee ki nar bëgg a lekk alalu doomu aadama yi kese mais dara amu ci sunu diine rek mooy dëgg l'islam dong mooy dëgg moo tax bi ñu ko fi bàyyee ba léegi dañoo torox dañoo alku dañuy dund dund gu metti li ko waral nag mooy yàlla tabaraka wa taala waxoon na wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan danka saa yu ngeen dummooyoo njubal yàlla rek yàlla tabaraka wa taala nee na dund bi ngeen di dund naqar yi tey dara taxul dund gi naqari lu dul rek li ñu dummooy njubal yàlla mu ngi nii nga gis tey ci biir dëkk bi ci biir société bi ci biir mbokk gi ay nit yoo xam ne toog nañ fukki at wala toog nañ nangami at am na ñoo xam ne dee nañ bu yàgg ay société yu ñuy jaay fekk fu ñuy liggéey nga jaay société bi ña fa doon liggéey yépp dem toroxi ji ñaari nit jël xaalis bi daw ak moom dem Europe toog di noos mu nekk ay mbir yoo xam ne wax dëgg yàlla mbokk yi war nañ cee góorgóorlu war nañu bàyyi xel mbir mi ba nga xam ne ëllëg ak si biir yii yëpp yi nga xam ne ay coono la ay jafe-jafe la dina wàcc doomu aadama yi bokk na ci ba tey ci njàngalin yooyu ñuy jële mooy alal aamili an yaddaxira wus'an fi injaazi amalihi ala xayri wajhin kii liggéey alal aamili war na liggéeykat bi allah yu daxira wus'an fi injaazi amalihi mu bañ a denc nag moom it def benn di ñog-ñogal dooleem bañ a liggéey mbir mi comme niñ ko ko sante maadaama moom liggéeykat la na fexe kem dalaayal kàttanam liggéey bi li mu laaj ci doole ci kàttan ci xel ci xalaat na taxaw pour def ko mu bañ a korkoral mu bañ a tricher mu bañ a wuruj ci liggéey bi nga xam ne moom lay liggéey ndax kat liggéey jaamu yàlla la bu mu tappale heure yi muy liggéey na mat léeg-léeg tamit nga gis liggéeykat yu doy waar doo xëy heure doo wàcc heure liggéey bi bu ñu la santee fukk nga def juróom bu ñu la santee juróom nga def benn ba pare nag ëllëg bis bu nekk nga bëgg taxaw di ñaxtu nangam ak nangam dugg fi génn fii loolu tamit mbokk yi lu ruslu la lu doy waar la ci liggéeykat bi yow liggéeykat bi yëgal ne ñaq bi ngay lekk bu daganul ci yow da ngay liggéey ba dee rek mais doo am dara li ngay liggéey fexeel nga def ko ni ni la ko borom santee soo waxee ak moom nangam heure sangam xëyal heure sangam lii nag tey dina dem ba ci ñi nga xam ne dañuy dund diine nee na ñoom dañuy dund diine nee na ñoom ñoo dund alquran ak sunna nga gis ci koo xam ne du mus a xëy heure du mus a wàcc heure du mus a xëy heure dundam yépp fexewu boolewu ci xëy heure ba pare nee na moom day jàngale diine wala day dund diine lu ruslu la tey mbokk yi ci sunu biir société bi ñetteel bi ñuy jëlee ci biir njàngaleen bi mooy taqdirul amilin wal muhafazatu ala huquqihim waajibun diini yëkkati liggéeykat yi ci kaw ak wattu seeni àq nee na loolu devoiru diine la waajibun diini devoir la boo xam ne diine moo ko santaane liggéeykat yi nañ leen teg ci kaw fonk leen di leen sàmm wattu seeni àq bañ ci fell lenn xam ne ay nit lañ xam ne ay jullit lañ wala bu dee du ay jullit ay nit lañ te mbindeef yépp yàlla tabaraka wa taala moo leen bokk teral ndax moom yàlla moo ko wax wala qad karram naa bani aadama doomu aadama yépp man yàlla maa leen jaboote man yàlla maa leen teral kon loolu nañ ci bàyyi xel ñu taxaw ci bañ a fa fell lenn ci àq jullit yi bañ a fell lenn ci àq doomu aadama yi mbokk yi ñeenteel bi ñuy jële ci hadis bi mooy li kullin minna dawru li kullin minna dawrun yuaddihi fi lxaya wala ginan anhu mahma yakun dailan kenn ku nekk si ñun am nga warugar boo war a def am nga rôle boo war a jouer kenn ku nekk si ñun munoo dem bàyyi sa moroom yow liggéeykat bi munoo dem bàyyi aji liggéey lu ji yow aji liggéey lu ji munoo dem bàyyi liggéeykat bi yow da ngaa yor sa liggéey di liggéeylu kii yor dooleem di liggéey kon yéen ñaar kenn mënul dem bàyyi moroomam kenn ku ci nekk na yëg ne dafa soxla moroomam kon kenn ku ci nekk na jéem a taxaw ci àqi moroomam mu def ko man damay liggéeylu yow da ngay liggéey ñun ñaar war nañoo mën a déggoo bu fekkee jàmm rek moo tax jóg man dama yor sama entreprise di liggéeylu yow da nga yor sa doole di liggéey man lii laa bëgg ku ma ko defal yow lii nga bëgg a def wax dëgg yàlla su fekkee wax dëgg rek man ak yow wax dëgg yàlla war nañoo mën a juboo damaa yor sama oto di dem yow nga yor sa paas di dem fa ma jëm fa nga jëm wax dëgg yàlla man ak yow war nañoo mën a déggoo war nañoo mën a juboo kon mbokk yi lii mooy lislaam tey hadis bi lañu abu hurayra radiallahu anhu wa ardaahu wittal ci toolu sang bi sallallahu alayhi wa sallam mooy lan mu fàttali liggéeykat yi mu fàttali mu fàttali aji liggéeylu yi ne kat dañ leen war a jox seen àq balaa seen ñaq fendi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam sangu sang yi moo ñu doon jox hadis bi yal nañu ko yàlla gërëmal fayal ñu ko aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafur rahim assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh